tey kontaan nañ sa ñëw ci euh, Esplanade Grand Théâtre tey lan mooy lan nga sentir tey ci bis bi waaw on est content dañu ñëw pour soutenir jeunesse bi soutenir suñu rakk ah vraiment on est là en tant que ambassadeur de la jeunesse en tant qu'homme de culture on est là pour soutenir la culture sénégalaise et la musique africaine vraiment ah c'est l'espoir c'est l'espoir waaw mais c'était pas évident xam nga ñëpp xam nañ sa emploi du temps xat na mais tey nga def déplacement ñëw donc lii euh, royukaay nga en fait ci jeunesse Sénégal waaw tant mieux tant soo ko waxee ñu ci am contentement bu rëy parce que xam nga ñoo xam ne ni emploi du temps bi nu mu chargé chargé ñi ñoo ñu bàyyi. dëgg la am sa bi ma gëjee Grand Théâtre yàggul ah, maa ngi woon fii samedi passé. Mm-hmm. donc ñëwaat fi tey ci Esplanade bi. war fi ñëw rek le avril encore. incha allah teew. donc incha allah euh, euh, maa ngi leen di jox rendez-vous maa ngi leen di xaar Equivox maa ngi <laughs>